ñu leen baaxoo defal bi fadilati cheikh alxasan seen ayyadahu llahu wa nasarahu di santit ñi nga xam ne ñu ngi topp suñu jataay yépp euh, sama waa groupe bopp baraada bi maa ngi ziar ñëpp ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di leen ñaanal yal nañu yàlla defal ñu fekk ko ay at yu bari luñ ci jaamu yàlla mu néew mu bari yàlla ñu ko yàlla nangul te ful ko di sant bu baax nag sama sopp préféré nga xaaja Mansour si di ko baax di ko sopp Cheikh Alassane Sène yal na ko yàlla taxawu te jàppale ko di nit ku woyof te baax te laa biir yal na yàlla dolli suturaam mbokk yi ñu ñëw ci suñu ñeenteelu bunt abaana mawliduhu an tibi unsurihi yaa tiba mubtadiin bu cheyri ñëw na ci juddug yonent bi sallallahu alayhi wa sallam na juddoom gi daal laabal na jamono laabal génération moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne woonaa tedd nga tàmbali juddu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci jamono waaye woonaa tedd nga juddu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci ferme gi mu ferme lépp moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam juddoom gi am ay miracle yu bari yu ci xew mu ne yow mun bis la boo xam ne tafarrasa fiihi l fursu annahum qad unziru bi xululil basi wa niqami ca la waa Guy Faris xamee xam bu wér nag ne ñoom daal ak waar wàcc na ci ñoom waar boo xam ne jurulu leen dara lu du njàqare ak naqar parce que yiñ doon taxawal yépp tabax seen tata yi jett ay xërëm di ko jaamu seen buur yi di leen conditionné ñu tege ci ko ëpp doole sa morom duma yooyu yépp day daal di jeex parce que yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wàcc na mu ne bi mu juddoo wa baata iwaanu kisra wa hiya mun sadiun ka samli ashaabi kisra gayra multahimi mu ne pana pale kisra dafa fanaan xar guddi googu xar nu fukki xar-xar ak ñaar dafa mel ni que sax na pale kisra ba xare woon noona la seen pale ba xare seen nguur war a yàqu ci lu amul benn werante boo xam ne ndeysaan dara dootu ca dajawaat dafa mel ni tremblement de terre moo fa jaar rek tasaare liñ jot a defar lépp ñi nga xam ne dañ doon jaamu safara ñoom it wan naaru xaamidatul anfaasi min asafin alayhim wan nahru saaji ayni saaji tarfi ay min sadami mu ni juddu yonent bi sallallahu alayhi wa bi mu juddoo ñi doon jaamu safara seen safara si dafa giim ba boo ñëwee ba fi safara si nekkoon da guñ ne la safara daan na fi tàkk nga ne du dëgg seen dex giñ daan jaamu ni mu daan yolee am doole nga xam ne dañ koy génnal sacrifice chaque année keroog bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam juddoo ci la dex ga mu ne wasaa asaawata an gaadat buxayratuha wa rudda waariduha bil gaysi bil gaysi xiina xiina dammin yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu Bushayri nee na keroog bi mu juddoo keroog la ngir saawata am lu leen naqari kañu yebaloon mu dem di rooti bi mu egsee ci dex gi dafa fekk dex gi ngiis te fekk na booba ñoom ñi ngi mar ba xaw a lottu tabaarakallaahu mu ne bu la koy misaal sax dafa mel ni ka anna na naari maa il maa bil maa i min balalin fa safara sa doon tàkk dafa mel ni ndox lañ fa sotti xam nga fa safara doon tàkk nangami at wala nangami siècle nga ñëw fekk ko mu mel ni lu guus buñ ne la safara tàkk na fi téeméeri at doo ko gëm ña doon jaamu ndox ma it ka anna bin naari maa bil maa i min balalin xusnan maa i maa bin naari min darami njàqare googu it moo dal ña doon jaamu ndox mi ndax bi ñu ñëwee fi ñu doon jaamu ndox mi dafa mel dafa ñiis ba dafa mel ni euh, sécheresse bu amee da ngay gis fi ndox nekkoon ni muy xotteekoo def ay toj-toj buñ ne la fii ndox daan na fi taa nangami siècle doo ko mën a nangu boo dee borom dégg-dégg bu gàtt. noonu la seen sawara sa mel ak seen ndox ma waaw ñoom ñëpp ñu mujj jàq na xam ne lii du dem wal jinnu tahtifu wal anwaaru saatiatun wal xaq yadharu min maanan wa min kalami mu ne jinne yi daal ñoom ñi ngi xaatif bi yonent bi di juddu sallallahu alayhi wa sallam da ngay taxaw ci gannaaw màkk wala montagne yi dégg jinne yi di wax seen son yi ca kaw ni ki gën ci nit ñi yàlla nga koy wàcce mi ngi génn son yi mi ngi daw publicité yaa ngi daw dëgg mi ngi feeñ ci lu wér ak ci wax ku am dégg-dégg ko ne dégg nga ne am na lu war a xew waaye ñoom daal malheureusement amu wa sammu dañoo gumba tëx fa ilaanul basairi lam tusma wa baarixatul imzaari lam tasumi ñoom daal publicité bi doon daw ci bët yi nga xool asamaan si muy def ay miracle yu kenn mësul xam ñi fi jiitu xamuñu ko woon ñoom ñii doog a ñëwit mosuñu gis miracle yi mel noonu ci asamaan si waaye malheureusement dañu gumba ci leeru yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dañu tëxit ci dégg waaraate woowu moo tax mu ne min baadi ma axbara al aqwaamu kaahinuhum bi na anna diinahum al muwajja lam mi gannaaw bi leen boro seen seen seen seen borom xam-xam ya seen gisaane kat yi wax leen ne leen am na kuy ñëw diine ji muy indi bu egsee dana dajji seen diine yu dëng yi keroog la seen jàmm noppee am ca la ñu yëg ne li ñu nekkoon ñoom mi ngi ci yoonu dajji ku dañ li yonent bi war a taxawal sallallahu alayhi wa war a ñëw na génn doon lu yoo xam ne mooy yor diine ji wa baadama aayanu fi l ufqi min shuhubin munqaddatin wafqa ma fi l ardi min sanami bi nga xamee ne leer na leen naññ ci mboolem gox yi ñi ngi gis ay jum yu jóge ci asamaan si di daw di dem ndax bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam juddoo shayatin yëpp dañ leen dàq ci kaw amatul benn porox ndoll bu ñu mën a jaar pour yëddu xabaar ñoom ñëpp ku ci yéeg rek da gis ni la jum yi toppe ñoom ñëpp nag ñi ci kaw suuf ñi ngi gis jum yooyu ñi ngi topp di daw ci mboolem goxi suuf yi di fàq seen statut di daanu seen yàlla yi seen xërëm yi yëpp di daanu ngir màggal juddug yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xata gada an tariqi l waxyi munhadimun min ash-shayatin yafqu asra munhadimi ba mujj xëy rek ñu dégg ne diine ji ñuy wax diine lislaam génn na fi te fekk na booba ñoom ñu ngi ci ñetti téeméeri yàlla ak lu teg di ko wootewoo ñu xëy génneel leen ne leen jenn yàlla képp moo am yi ngeen di jaamu du dëgg loola nag shayatin yi mënuñu ko dégg ba moo def ci ñoom ay jeexital yu doy waar ka annahum haraban abtaalu abrahatin aw askarun bi asa min raxatayhi bi min raxatayhi rummi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daq na dàq na leen dàqe jàmbaar koo xam ne comme ni ñu dàqe woon jàmbaar yi abraha ya ca xeer ya leen yàlla doon sànni ca tayran ababil moom la wax ca alam tara kayfa wax na mu jëflante ak abraha yebal ci ñoom ay picc yoo xam ne ñi ngi yanu ay sawara jëlee ko sawara wu ñax si jiili di ko wàcce ci seen kaw xeer wi daal da mel ni xalwoo teg ci mbuus rek ni mu koy lakk di bënn di jàll ca suuf noonu la meloon mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu feeñee noonu la jum yi meloon di dàq shayatin yi di leen génne ñoom ñépp ñuy daw wala sax mu mel ni ay xeer yoo xam ne daf ko téye ci tinqam lu tedd loolu bu ko sànnee day mel ni balu fetal nabdan bihi baada tasbihin bi batniha nabdal musabbihi min axsaihi min axsaai multaqimi yonent bi sallallahu alayhi wa nekk na ci guerre téye ay xeer téye ko ci loxo bi mu sàbbaal mu jox ko Seydina Abi Bakar mu téye ko mu sàbbaal mu jox ko Seydina Omar mu téye ko mu sàbbaal yonent bi jël xeer yi sabt ko noon yi mu mel ni ay bali fetal ci ñoom ngay seen nit ñi daanu nee na noonu la mel nabdal mu sabbixi comme sàbbaalu sàbb sànni aji sàbbaal ja mu yonent yàlla nuux yonent yàlla yunus min ahsaa i multaqimi keroog ba ko jën wa wanne yonent yàlla yunusa jën wi daf ko wann waaye dañul di fa nekk di sàbbal boromam ak di julli ci sallallahu alayhi wa sallam naan laa ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min addalimina ba mujj gi jën wi daf ko mujj gëkk ca biti génne ko ngir julli gi mu daan julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ak sàbbaal gi mu daan sàbbaal boromam moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daana wax ne sama ñaanu mbokk ma yunusa de yéem na ma ñu ne ko lu mu la yéeme mën na njëlbeen gi taxliil la sàbbaal la digg bi taxliil la mooy dafa tudd daf ca tudd yàlla mu jëntal ga dafa lëkkale boppam ci tooñkat yi moo tax yàlla jéggal moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ko faral di wax kon mbokk yi loolu moo doon suñu ñeenteelu tomb ci burdatul madih di gërëm soppe yi nga xam ne ñu ngi topp suñu jataay lu ci jub ngeen xam ne yàlla lu ci dëng ngeen xam ne bëggoon lu baax rek la ah, fa tabarakallahu ahsanal xaalixiina di ñaanal ñëpp xéewal di ñaanal ñëpp jàmm di ñaan yàlla bu mu doon suñu mujj gàmmu wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu